yile xeetu garab mel ni luy faral di xatal dëkkuwaay yi wante njariñ li ñu am ci dundinuk doomu aadama bi bari na la ci wàllu ko dundin ba ci faju lii ñu mën a bayee ci biir kër yi ki ko fësal di Kumba Diop xelam màcc ci wàllu micro jardinage te jëfandikoowul benn yoon ay produits chimiques. ñu bari tey ñu ngi ñu ngi bay li ñuy lekk seen kër ñoo koy bayal seen bopp ndax dañuy def formation yi ba pare dem di ko pratiquer kon tey daal ñun ci loolu la ñuy dox. luy jëmale euh, agriculture bu amul engrais chimique ci Sénégal moom lu ñu bëgg mu gën a yaatu nit ñi xam ko di ko def waa te lii dafa nekk loo xam ne dafa accessible si ñëpp kër gu ne mën na ko am. ci ndajeem FIARA 2024 bii Koumba Diop dañu présenté xeetu garab yi nga xamante ne fësal na ko lépp rek di wane nii lu bëri mënees na koo bay fii ci Sénégal. juróom benn verte naanaa am na fi citronnelle am na fi naanaa menthe naanaa euh, pastille naanaa citronné menthe bergamote yooyu am na fi am nañu lépp loo xam ne épice la am nañ ko persil euh, sauge romarin euh, thym mélisse yooyu am nañ ko te ay épice lañu léegi am nañu ay légumes chou les chou la am na tomate dañuy am salade façon culture bi lépp lañu ciy bay ay figuier les figues la am nañu ay ay ay goyave laurier sauce bi togg am na fi yooyu yëpp dañ am kon nga xam ne tey ñun Afrique ñun ñoo ñoo war góor góor rek mais lépp mën na fi am. donte ne mekku nañu jéego yi nga xamante ne bi def nañu ko ngir mën a bay ci biir kër yi bile xeetu mbay di jànkoonteel ay jafe-jafe yu baree bari moom mi xelam màcc ci wàll wi mu ngi ciy sàkku ndimbalu kilifa yi. ñun ñi nga xam ne acteur développement yi li ñuy yëngatu nga xam ne dafa am solo dafa am solo ñun tey ministre agriculture dafa ñu war a xàmmee dafa ñu war a xàmmee ràññee ñu jàppale ñu waaw jàppale les femmes jàppale les jeunes. léegi nañu Sénégal gi lépp li nga xam day doxal agriculture am na fi am nañu suuf am nañu naaj am nañu ndox kon léegi lu fi des dul ñaax xale ñu toog bàyyi ngéej gi ñu jox leen suuf si ñu liggéey ko. jamono yi tey ay jéego yu am solo nemmeeku nañu ko ci mbay mi fii ci Sénégal mu doon lu mucc ayib. micro jardinage mën a indi lu am solo ci dundin wi wante itam ci paj mi ngir askan wi dina dooleel itam mbay gu mucc ayib te méngoog li environnement bi soxla wante itam ku ne mën na see jot